bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin wasala allahu wasallama wa baaraka wa taraxama ala ashrafi alxalqi wa aaz almursalin sayidina wa nabiyina wa xabibina abilqaasimi almustafa muhammad wa salli ala muhammad wa ala ahli beytihi tayibiina taahiriin warasati risaalati wa nubuwa xujajillaahi alayna wa ala alxalqi ajmain wa ajjala allahu taala fi faraji waliyihi wa xalifatihi fi ardihi baqiyatihi tayibati taahirati alladi bi baqaihi baqiyati dunya وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك aleykum minni salaamullahi abadan ma baqiitu wa baqiya leylu wannahaar wala jaalahu llahu axira al ahdi minni li ziyaaratikum assalaamu ala alxusayn wa ala aliyin bni alxusayn wa ala awlaadi alxusayn wa ala ashaabi alxusayn wa laanatullahi daa'iman abadan ala man qatala alxusayn wala man zalama alxusayna min al aan ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu mbokk yépp njabootuk Mawlana Cherif Mouhamad Ali Haydar soppe yi ak xarit yi soppe yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi soppey xarit yi Fatima Zahra salaamullahi aleyha soppey mawlaana wa mawla kulli mumini wa muminatin amiril muminin imaam ali alayhi salaam soppey mawlaana al imaami al xasani al mujtaba ibni rasulillah soppey yéen souteneurs yi mawlaana sayidi shuhada abi abdillah imam Xuseyn alayhi di njabootu Chérif Mouhamad Ali ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di toftal ci lii Alioune Badiane ubbee ñu ñaan majlis bi di jaale ci ñun tam dugal ci ñaari kilifa yu mag yooyu di ay figure emblématique yu mag yu ñu xàmmee ci si réew mi sama bàyyi Cheikh Abdul Qadir Mbakke sama sëriñ sama nijaay Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabbar si ñu xam leen jarul ñuy dellusiwaat ci ñoom ñaan yàlla yokk seeni leer yokk seeni maqaama ci barzaqil Xuseyn alayhi salaam yàlla nañ ko yàlla defal ndax rôle yu mag yi nga xam ne joué nañ ko te ba nëgë ni mën nañu bis bu nekk di root ci seeni teen ngir jëmmal njàngaleem yonent nag dëgg dëgg ngir gind ci ñi nga xam ni jotaguñu woon gindeeku mbaa ñu ngi ci ak jaaxle Karbala Imam Hussein Ashura tamxarit njàngat yi du jeex bis bu nekk mën nañ ci am njàngat bu bees xam-xam bu bees bind bu bees ni ko boroom daara yi di waxe mbaa leçon bu bees ngir ñu mën a déggante ndax ñu bari ci ñu déggatuñu yenn concept wolof yi njàngat yi du jeex ndax dégg ngeen fii Maulana Sayid Cherif Mouhamad Ali Haydar xaadima ahli bayti alayhim salaam di la wax ni Karbala du jeex mukk du jeex jusqu'à la fin des temps à la fin des temps de sa temps-là que nous connaissons que nous sommes en de vivre bi ñuy dund nii et le temps qui va débuter après la fin de sa temps-là est-ce sax Karbala du continuer foofa ci biir àjjana du jeex bis bu nekk mën nañ ci jàngat waaye. tey dañoo yittewoo woon ñu dellu ginnaaw tuuti ndax bis bu nekk dañ naan yonent bi nee na ci Karbala yonent bi wax na lii yonent bi def na lii tey ma bëggoon ñu firndeel ko layal ko indi ci ay tawsiqaat c'est-à-dire mu doon ay propos yoo xam ni dañ koy layal indi référence yi documenté ko maanaam wax ñi fi ñu tegu ñu ni waaw bala ñuy ñëwaat ci imam Hussein ak ay maqaamaam nga xam ne man ci jàngat lu bari dañ naan waaw yonent bi moom ban taxawaay la am ci Karbala fekkewu ko naka la ci mën a amee taxawaay yonent yàlla Muhammad Abul Qaasimul Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa lan mooy taxawaayam ci Karbala naka la ko dékkoo naka la ko gàttandoo ci bu jullit bi comprendre nangu du jëm nangu nañu yonent bi mooy ngeen jëmmi def yonent yi yonent bi yàlla xamal na ko lépp mu des ñu comprendre ni xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi fi mu toogoon ci Médine nekk di jàngal xeet wi yàlla da ko ubbil bunti jamono yépp lépp luy xew ci jamono bu neexoon yonent bi fa mu toog mu wax leen lépp seconde par seconde ce qui va se passer dans le temps et dans l'espace seconde bu nekk ak ba cay topp yeneenti bi mën nañuy wax lii xew ci jamono ci kaw suuf ak lii xew ci jamono ak ci ban at lay am ci ban weer lay am ci ban jamono lay am xamoon na lool kon kay xamoon na Karbala waaw waaw xamoon na ni dina am waaw waaw xamoon na ni dina ñëw waaw waaw nan la ko gàttandoo laaj boobu bu fekkee ne réussir nañu indi ci tontu rek. dinañ comprendre lu bare bare bare bare bare bare bare danañ xam itam bu boobaa ñun naka la ñuy mën a dunde dëgg dëgg dëgg dëgg et en parfaite communion dans une communauté maanaam naka la ñuy dunde ñun ñépp naka la ñuy mën a taxawee taxawaayu ku nekk taalibey Xuseyn wante buñ ca jógee danañu xam naka la ñuy mën a dunde ci biir kuréel goo xam ñoo ko bokk ñun ñépp ñu nekk fa bokk ca njaboot ga loolu mooy vivre en communauté ou bien une vie communautaire vie dugg ci njaboot dund ca temps yi bariwul dañ ci gàttal rek jël ci benn bu ñu demee ci benn téere bu mag référence koo xam gëstukat yi xam nañ ko gëstukat dëgg du am choix du am préférence gëstukat boo xam da ngay it xam-xam moo la yitteel xam-xam mooy sa làmp bi lay niital sa objectif mooy sa jubluwaay doon gis dëgg ngir mën koo topp pour pour sauver ci àddina ak ci àllaaxira kooku mooy gëstukat un chercheur kooke li koy yitteel mooy xam-xam boo xam ne ñor na référence yu dëgër ak liñ ko teg moo tax du am choix du am préférence bu ngeen demee ci ulama yi dëgg dëgg dëgg noonu lañuy tàllalee yoonu gëstukat noonu lañuy wane yoonu ñi nga xam ne dañoo bëgg a gëstu dëggantaan dëgg-dëgg benn téere bu ñu tuddee al amali kilifa gu mag bind ko di Cheikh Saduq daf ko def ay majlis ay jataay yoo xam ni jataay bu ci nekk da ci daan jàngale li ma daan jàngale ci jataay yu mel nii mbaa ci ay cours xadis bii nga xam ni évoqué na ko évoqué ci boo demee ca téere ba di deuxième xadis ci vingt-quatrième assemblée di ko tuddee ay assemblée ay majalis ci ñaar fukkeelu jataay da ko tuddee ay majlis jataay ñaar fukkeel ba ak ñeent vingt vingt-quatrième majlis am na fa benn xadis boo xam ne kilifa gu mag moo ko solo moo ko indi bu ñu kilifa gu mag mooy kilifa la goo xam ñi gëstu xam-xamu xadis xadis benn fànn la ab domaine la domaine de recherche boo xam ne boo bëggee dégg lislaam itam foog domaine boobu dalay ñor dalay intéressé waaye domaine la boo xam ni dafa lëkkaloo lëkkaloo rikk ak taarix di histoire doonoot beneen domaine boo xam ne muy domaine u dafa rëkkaloo rikk mooy dafa am un lien ombilical ak philosophie dellu siwaat amaat même lien boobu ak littérature bi ay fànn yoo xam daf lay dimbali comme nga mën a comprendre mën a dégg wax di mën a dégg wax di ko dégg ci objectif yi muy visé di mën a dégg wax di ko comprendre itam dans son contexte ñaari anam yi contexte dafa am loo xam contexte boo xam dañu wax contexte particulier la réduit am boo xam ni dafay dem dans le contexte général yonent bi da daan waxee noona xadis boobu ku ñuy wax ahmad ibn moussa daqaaq buñ demee ci ñu tuddee ilmu rijal muy domaine boo xam ni dafay intéressé wu ci li ñuy tuddee la connaissance ou l'identification des hommes xam gaa ñi yan gaa ñi nga xam ni ñoom ñooy rapporté xadis ñoo doon nettale xadis yi moussa daqaaq bi bokk ci ñi nga xam ni kuréel yi kuréel yi jullit yépp gëstukatu xaddis yépp daanaka ànd nañ ci ni lu mu wax ci xaddis dëgg la sont quasi unanimes daanaka ñoom ñépp nee nañ lu mu wax ci xaddis dëgg la mu nett la benn xadis boo xam ni boo toppee chaîne bi mu ngi dem ci ibnu abbas xam ngeen ibnu abbas jullit yépp même bu ngeen demee ci ahlu sunna ñoom dañ ko tuddee ni ko moom mooy xibrul umma xibru nga xam ne daña encre la encre mooy koo xam ne am na ci xam-xam lu bari waaye sotti na ci lu bari itam pour nit ñi mën ko jariñoo dañ ko respecté lool boo nga demee ci domaine ahlu sunna mais bu ngeen dikkee ci chia itam ñi li ñu xamee ibnu abbas mooy fidélité bu mu amoon ngor gu mu amoon ci topp la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ci imaamu ali moo tax mu jàng ci ñoom lu baree bare ba pare nag mu nangul leen ni ñoom ñoom ñooy ay sëriñam ay mbokk lañu ndax ay cousin am lañu waaye ñoom ñooy ay sëriñam ñoo di itam ay ay njiitam ñoo xam ñoo koy giddee ñooy ay wasilaam yi koy yóbbu ci yonent bi bien que mi ngi doon dund ak yonent bi Ibnu bokk na ñi nga xam ni bi bi fi yonent bi nekkee génnagul àdda jógee gu fi nangu woon na ni imaamu aliin mooy wasila mooy bunt bi muy jaar pour egg ci yonent bi ñu fàttali foofu ni ñi comprendre laa wax avant yonent di génn àddina ñi ngi dox seen gëdd ci imaamu ali ñu ngi koy jàppe xalifab yonent bi mais ñu ngi koy jàpp ni mooy bunt bi nga xam ne itam boo jaarul ci moom doo egg ci yonent bi considération bi nga am ci war a am ci yonent bi mbaa boog naw gi nga nangu gi yonent bi gi ngay am ci yonent bi mu nangul la ko say mbir place bi ngay am ci yonent bi nga xam ne kenn ku nekk fa la lay teg doo ca egg Ibn Abbas comprendre na loolu tant que jëloo imaamu Alioune teg ko ci place bi nga ko war a teg dans ton ci sa biir xol bokk na ci xamoon lool boo demee Cheikh Sadoq ci Amaalim nga lay nettali xadis bi ni Ibn Abbas ci moom lañ ko jëlee mu ñëw bokk na ci bokk ñi nga xam ni nettali na ko et ñu wóolu ko ca nettali ko mu ni ci biir xadis dafa gudd nag mais dama yéene woon ñu tënk ko tey waxtaane ko ci jataayu tey bi mu ni benn bis dañu toog yonent bi toog benn bis am na ay jataay yu ñu am ak yonent bi yoo xam ni daawuñu ko am toujours ndax xam ngeen ne yonent bi amul jot amuloon jot suñ jëlee lenn rek te laa Maulana di ko répété jamono bu nekk ci discours am xaw ma ndax ñu ngi ci def attention wala déet xaw ma ndax bokk yi déglu ci Sénégal ci Afrique ak ci àddina bi ñu ngi def attention ci remarque yooyu ci réflexion yooyu wala déet nee na yonent bi te histoire bind na ko mais mu ciy génne yoo xam ni daf ñuy jàngal lu bari su fekkee ni bàyyi nañ ci xel. yenent bi lu mu néew néew néew néew néew def na quatre-vingt-six quatre Cheikh Mourtada ci gëstoom indi nañ keloog ni dem na ba quatre-vingt-six guerre quatre ci fukki at bari na de ci kaw nga xam fukki at ñaata weer la fukki at téeméeri weer la ak ñaar fukk ça fait cent vingt mois dix boo calculer c'est cent vingt mois cent 120 boo ko divisé ak deux doo am 2 mois sax de répit en moyenne mathématiciens yi acca doo am deux mois de répit 120 mois divisé ci 82 ay 45 jours 37 jours ngay am loolu mooy lan kon peut-être 45 jours yu nekk yonent bi mi ngi doon dem guerre su fekkee ne 45 jours yu nekk en moyenne yonent bi guerre. te quarante cinq jours sax c'est pas largement suffisant pour préparer une bataille maanaam doyul sëkk sëkk sëkk pour waajal guerre kon kay yonent bi amul woon jot bu ñu la nekkoon am na ay jataayam yoo xam ñëpp daawuñu ko am maanaam daawul doon ay jataay yu régulier war nañ ko xam léeg-léeg nag dañ la koy caricaturer comme koo xam ni bu xëyee suba bu jullee fajar ba pare mi ngi toog ci jàkka ji du fa génn ba keroog mu julli tisbaar bu jullee tisbaar fa lay toog du génn ba jul jul tàkkusaan bu jëlee taksaan du génn ba keroog mu jul timis boo xoolee ni dundam tëddee ni ko histoire nerte da ngay xam ne loolu munte nekk c'est impossible boo xoolee personnalité am ak ak charge yi mu yore danga xam ne loolu munte nekk c'est pas possible kon am na ay jataay yoo xam ni ay jataay yu particulier lay doon réservé à huis te moo gën a bari mu ci préparé njaboot gi nga xam ne ñoom ñooy séddoo yanu charge yi ëllëg jataay bi ñu ni toog toog sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg ñu seen xasan di ñëw nekk xale bu ndaw danañ ferkaan jàkk ji parce que kër Fatima di kër Ali mook jàkk ji ñoo taqaloo woon donc xale yi bu ñu musaan dégg xale yi ci waxin di jégalu ci waxin ci waxin parce que dañu di jox benn image boo xam di nga leen mën a comprendre ñu percevoir ko bu ñu musaan toog génn ana maam gis ko mu nga jàkka ji dañuy daal di ñëw fekk ko fa bi mu toog di waxtaan mu seen xasan di ñëw rek ndeysaan mu commencé jooy moom rasulillah ah bu mu yegsee mun ko ñëwal yàbbu ney ñëwal fiston sama doom ju ju ma bëgg ji mu daal di ñëw ba mu jege ko mu mu teg ko ci penku ndeyjooram daal koy uuf foofu ñu siggi mu mel ni dañoo toppante mu mel ni dañoo déggoo moo Ousseynou ñu mu seen Ousseynou du ñëw jooy yi dakkoon na mu reprendre jooy yi nee na yonent bi tàmbaliwaat jooy ci anam bu gën a metti bu gën a triste bu gën a dugg ci xol yi ah ñu jaaxle Ousseynou ñëw toog yonent bi jël ko ndeysaan teg ko ci penkub càmmooñam uuf ko kon uuf na ñaari mag yi ak rakk ji nis tuuti Fatima génn ñëw daa mel ni boo xoolee topp xadis bi du hasard ab situation la dafa mel ni bu yàlla di programmer rek yonent bi sëngéem jooy moom itam ah mu jooy ko yonent bi du woon nag nit ku woyof de lu ko jooyloo lu nekk loola yëngal na arsh ak kursi foog ñu bàyyi xel ci loolu doonu woon nit ku émotif nga xam léeg-léeg défaut lay doon faiblesse lay doon déedéet bu jooyee rek li mu jooy dëgg la te loolu yëngal na arsh ak kursi jibril mikaayil israfil saa saabu yonent bi jooyee jooy nañu loolu imaamu jaafaru saadiq as-saadiqul musaddaq moo ñu ko jàng moo ñu ko wax faatima ñëw mu sëngeem jooy ca daat koy ni ko toogal mu toog ci kanamam uufu ko mais daf ko togla ci kanam nii ni suuti imaamu alin topp ca ñëw hmm? amirul muminin ñëw bi yent bi gestoo seen ko muy ñëw di bàyyi asan ak useyn di jëkkëri doom ji fatima mu daal di jooy foofu itam jooy yu metti a ah, ñi toogoon ci jàkka ji saxaaba yi ñoo ñu doon yàlla nekk yonent bi ñoom lañ tuddee saxaaba yi bu ngeen comprendre saxaaba yi ñooy ñan bu rombee ñii nga xam ne moo tax ñuy jooy mooy taalibe yi taalibe nag ñëpp a nga ca genre yëpp a nga ca ñu ne ko waaw aw man fiihi man tasurru bi ru'yatihi yaa rasulullah ñun li ñu comprendre mooy dafa mel ni ñii ñëw ñëpp bëggo cee gis kenn dafa mel ni amu ci kenn koo xam ne boo ko gisee bëgg parce que ñoom ñëpp da ngaa jooy yonent ni leen maa ngi leen di waatal walladi baasani bi nubuwati wastafaani ala jamii albariyati inni wa iyaahum la akramul xalqi alallahi azza wa jalla maa ngi leen di waatal ci buur bu mag bu sell bi nga xam ne moo ma tànn yónni ma tànn ma ma gën ñëpp ma gënal ko ñépp maa ngi leen di waatal ci buur bu mag moom di man mii ak ñii ñoo gën ci yàlla bind ñoo ko gënal ci ñi mu bind itam maa ngi di waatal lool première leçon affirmation bu doy waar bu solennel na nag wa ma ala wajhi l ardi nasmatun ahabu ilayya minhum ma bëgg ngeen xam ni amul ci kaw suuf benn mbindeef boo xam ne moo ma leen gënal ñoom ñi amul itam ci kaw suuf benn mbindeef boo xam su ma ko su ma ko gisee danaa bég lu toll ni ni may béggee su ma leen gisee ñoom ñii amma aliyun ibn abi kaay leen ma wax leen gis ngeen aliyun mii fa innahu axi wa sama rakk la sama doomu ndey la dañoo mel ni ñu bokk ndey ak baay ma moom foofu laa ko teg foofu la noonu la toll ci man te noonu mu toll ci man noonu la ko yàlla defee wa saaxibul amri baadi moom nag mooy ki nga xam ni mooy yore mbir mi sama ginnaaw li ma yor yépp sama ginnaaw moom la wa saaxibul amri c'est lui le détenteur de l'autorité après moi bu ñu waxee détenteur de l'autorité mooy lépp luy institution de l'état bi nga xam ni maa ngi koy tabax nii ci loxoom lay nekk ci biir ak ci la cay secret la cay mbóot ak la cay xam-xamu nuboo wa saaxibu liwaa'i fi dunya wal axira mooy ki nga xam ni mooy yor samay samay mbóot mooy yor samay secret mbaa mooy yor sama drapeau ci àddina ak ci alaxira wa saaxibu xawdi wa shafaati xam ngeen ni yàlla nee na ma dinaa ramm xam ngeen ni yàlla nee na buntu kawsara man maay man maay ubbi robinet ya muy xelli yooyu ñaar ñaar yooyu yëpp nag ñu ngi ci loxoy Ali ibn Abi Talib mi damaa bëgg ngeen xam ko tey yonent bay wax de wa huwa mawla kulli muslimin wa imaamu kulli mu'minin moom kilifa lay doon ci bépp jullit mooy musulman waaye mooy imaamu bépp jullit un croyant ñoom dañ koy nangu nekk mu nekk seen imaam ku bañ ak ku nangu yépp moom la parce que yàlla moo ko ko teg wa qaaidu kulli taqiyin képp ku ragal yàlla nag danga bootu ci ginnaawam nee na képp ku ragal yàlla da nga bootu ci ginnaawam yonent bay wax de wa huwa moom aliyun mii wasi yii mooy ki nga xam ne mooy sama ndono wa xalifati moom mooy wuutu itam moom la de ñëpp a ngi toog ñëpp kenn kenn kenn manqué wul su ma nee kenn moom mooy les figures les plus connues maanaam jëmm yi ñu gën a xam ci saxaaba yi ña nga toog su ma la nee kenn ratewul rek ñooñu ña nga fa woon ala ahli wa ummati fi xayaati sama njaboot moo leen di kilifewu waaye sama xeet yépp itam mooy nekk seen kilifa sama ginnaaw fi may dund nii moom la wa ba'da yi moo tax man la sànq ñi xamoon ñoom salmaanu Faris ñoom bilaal ñoom Abu Zar ak consort dañ daan jël imaamu Ali comme seen kilifa balaa ñuy egsi ci yonent bi moo tax loo dégg ñu leen daan xas dunguru yi mutamalliqoon yi xaaraankat yi dunguru yi paa bu toll nii topp ci ab jeune 33 ans wala 30 ans lu nekk dégg nañ ko lu ne lu ne dañ koy dégg loole nag nga li Maolana di wax faral di wax ni l'histoire sa répète su nekk nga dégg yu mel noonu wa bi wilaayat daf ni mu teg ca ni mu mu muhibbuhu muhibbi ña ko bëgg ñooña bëgg nañ ma wa mubghiduhu mubghidi ña ko bañ nag ñooña buñ ne bëgg nañ ma waxuñu dëgg yonent bay wax de mu ngi wax communauté bi yépp ñépp a ngi toog ci Medina wa bi wilaayatihi saarat ummati marxoomatan ci wilaayaam mooy autorité bi ko yàlla gàll su ma la nee autorité nag day mel ni affaire àddina rek waaye autorité bi bi yonent bi wax ci alil mooy autorité spirituelle ak temporelle lépp lu yàlla ma nga ci moom ba boo bëggee boo nee allahuma yàlla ni amin danga naan ko allahuma bi xaqi aliin yàlla xool sa xol gis ca bëgg aliin ak wekk aliin loo ñaan mu nangul la ko loolu mooy loolu autorité boobu la yonent bi wax wa bi adaawatihi saaratil muxaalafatu lahu minha mal'unatan ku ko wu ku wuuteeg moom nag yàlla dina la rëbb waaye nag noonu lay deme de wante nag wa inni bakaytu xiina aqbala bi ma ko séenee nag damaa jooy xam ngeen lu tax ma jooy ñu ko déedéet yaa rasulallah mu ni parce que xam naa ci lu ma yàlla xamal ma daal di fàttaliku la ma yàlla wanoon ci moom ma gisoon ma gisoon ñu koy def zakartu ghadral umma bihi dama fàttaliku la trahison de ma communauté trahison boobu nga xam ne moom mooy egg ci ñu ñu trahi ñu rey ko assassiné ko ba buñ koy dóor di xar bopp bi loolu laa gis yàlla wan na ma ko bu yàgg saa bu ma séenee Alioune sama xel dem ci ma séenaat ko yàlla wanaat ma ko beesalaat ma ko looloo ma jooyloo te loola buy am mi ngi am ci weer wi gën ci weer yi te mooy shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda nga xam ci la ñu wàcce alquran pour nit am jàmm moom mu ñu ko koy def lool weer wi ñu wàcce alquran pour nit am jàmm am njub ci weer woowu lañu def yàlla li ko gën a naqadi mooy rayal ko waliyam bi loolu lay jooy te jooy yi ma jooy aras mi ngi koy jooy ak kursi jibril ak mikail ñu ngi koy jooy sama doom jii di Fatima nag ma wax leen lu tax ma jooy moom mooy sangu jigéen ñi àddina bi yépp ña jëkk ak ñi mujj ña jëkk commencé ca xawaa ak ku mujj a ci jigéen kii mooy sa sa sa sa mawla mooy sa maîtresse moom nag mooy man ndax ci ci man la dagge dafa mel ni aw dogit la ci man moom nag mooy sama leeri bët moom Fatima mooy sama reeni xol Fatima mooy sama ruux mooy sama am bi may noyyee bi nga xam ne moo nekk sama biir moom lay noyyee kookoy Fatima wayal xawraa ul insiya moom nag uurul ay ni la bu ñu solal mbubbum nit kookoy Fatima mais Fatima misaa bu taxawee di julli ci kanamu boroomam zahara nuuruha li malaayika sama kama yazharul kawaakib li ahlil ard malaaka yi dañuy gis leeram muy mel ci asamaan yi ña nekk ci asamaan dañuy xool suuf ay leeram di ca jolle di ko gis comme ni ngeen di seetaane biddiw yi yéen bu fekkee ni da ngeen nekk ci jamonoy nawet bu coo euh, kii noor bu cooroon nga xam ne biddiw yëpp day génn ngeen naan biddiw si asamaan yi ni ngeen koy séenee noonu la malaaka di gisee leeru Zahra su fekkee ni mu ngi julli bu ko defee yàlla naan malaakaam yi yaa yi yéen sama malaaka yi xoolee leen ma sama jaam bi nga xam ni ma ko bëgge bëggewu ma ko kenn nga xam ni mooy sangu sama jaam yu jigéen yi yépp ki mooy seen maîtresse ma nga di julli bëgg ma lool ba buy bu nee allahu akbar day day rak-raki ndax xol bu fees ak bëgg ma ma xaafati ragal ma ragal yàlla mooy amour bi ñu am ci yàlla ba mu fees dell seen xol nee naa leen fii ragal yàlla bokkul ak ragal agresseur bokkul ak ni ñuy ragale gaynde mbëggeel gu tar la ci sa diggante yàlla ba doo bëgg dara dugg ci biir mbëggeel googu ba man koo yàq wala mu man koo njar loolu mooy ragal yàlla looloo daloon Fatima bi ma ko xoolee ma fàttaliku lañ koy def sama ginnaaw mii maa ngi nii mu mel ni maa ngi gis li ñuy def Fatima mi ngi nii ñu ma koy wan sama kanam li ñuy dugal ci këram ci toroxal ko ci biir këram ñu koy toroxal ci biir këram amul kenn ku koy wàllu maa ngi koy dégg mu may woo naan yaa muhammadaahu di ma woo yaay sama baay sama muhammad mi ñàkk naa la te kenn du ko wuyu watustaraas watastariisu falaa turaasu muy wut wall kenn kenn du ko wallu loolu laa gis moo tax may jooy te nag bu ma fi jógee noonee lay nekke mahzuna ci trestes ak njàqare makruba nekk ci ay catastrophe ak ay metti baakiya di jooy guddi ak bëccëg di fàttaliku ñaar yu mu amoon amatu ko mooy wax yu bi daan ñëw jibril di bàggante ci biir kër gi dama ko ñëw malaaka yi di ko gunge ci délégation yu fort yooyu te gisatu ko mu leen daan gis te gisatu ko dana ko wàññi ba pare muy dund métit yooyee dégg gi mu daan dégg sama baat guddi may jàng alxuraan tam déggatu ko loolu yépp nekk ci biir xol bi mu koy metti muy fàttaliku loolu ak wéetaay ba nga xam fa la nekk mu gis boppam ñu toroxal ko ko mu torox ba ni tot kenn topp tootu ko waaye nag xam leen ni bu boobaa yàlla dina ko yónnee Maryam mu koy wéttali malaayka yi naan ko yaa Fatimatu di ko wax la mu waxoon Maryama inna la stafaaki wa taharaki wa stafaaki ala nisaa'il dalal yow la yàlla tànn def la nga gën ñépp ginnaaw bi méttit commencé di ko topp ndax dinañ ko duma duma yi métti toroxal ko damm farga daat koy avorté nag bu ko defee mu nekk ci loolu di nekk ci loolu di nekk ci loolu ba dem ba découragé daal di ñaan ni yàlla bëggatuma ci dund gi dara dama bëgg nga yóbbu ma dem sama papa bu boobaa yàlla jël ko mu fekk si ma moom moo may jëkk a fekk si loolu laay jooy toroxtaange goog nga xam sama xeetu danañ ko taraxal sama doom ji moom laay jooy waaye Assane moom moom sama doom la de ci man la jóge su ma ko xoolee sama xol sedd moom mooy leeral sama xol meññentu sama xol bu doon garab guy meññ asan la moom kenn la ci sangu waxambaane àjjana yi te it moom mooy layu yàlla ci kaw xeet wi bokk na ci layu yàlla yi ci kaw xeet wi bu leen yàlla àttee ëllëg danaa leen lu tax defu leen lii lii ak lii ak xasan ak mu xasanu mujtaba moom mbiram mooy sama mbir kilifteef gi mu yor mooy kilifteef gii ma yor tey lu mu wax man maa ko wax lu mu def man maa ko def ku ko topp topp nga ma ku ko toppul nag toppoo ma ma xalaat liñ koy def sama ginnaaw ginnaaw bi ñu ko defee baayam def ko yaayam danañ sudduwaayee jabaram mu posene ko mu dee ca posen boobee dee ci wéetaay sama doom ji Assane dina dee ba pare ñu continuer di ko toroxal dina dee ba histoire ñëw ñu continuer di ko tuumaal di yàq deram te sama xeetu ñoo koy def keneen du ko def bu ko sama noonu yi doon def sax du metti waaye ñi nga xam nee nañu ànd nañ ak man ñoo koy def looloo tax mu metti ma dinañ ko rey asamaan dina ko jooy suuf dina ko jooy malaaka yi dinañ ko jooy ba ci jën yi ci biir géej dinañ ko jooy ba ci xorandoom yi ak melentaan yi ci kaw suuf danañ ko jooy amul lu nekkul ci kaw suuf loo xam doo jooy xasan waaye yéen du ngeen ko jooy looloo tax mu koy jooy Ousseynou mii nag moom itam ci man la bokk xam ngeen ko wa xayrul xalqi min baadi ki gën ci yàlla ñu yàlla sàkk sama ginnaaw moom la wa baada axiihi ginnaaw bu bàyyam wéyee ak yaayam ak rakk magam ji moo gën ci ñu yàlla sàkk wa huwa imaamul muslimin te mooy njiitu jullit yi wa mawlaal muminin mooy kilifa ñi nga xam gëm nañ yàlla nangul ko te ñooñu dañuy topp ci ginnaawam wa xalifatu rabbil alamin moom mooy xalifab yàlla ci kaw suuf jamono wa riyaasul mustaxisin Ousseynou mii mooy wallu ñi woote wallu ñépp ci àddina moom la moo leen di wallu yaa raw saa bu ngeen ko waxee su may wallu rek Ousseynou mooy ñëw wa kahful mustajirin daw làqu yi Ousseynou mooy seen làqukaay wa xujjatullahi ala xalqihi ajmain moom nag mooy layu yàlla ci kaw bindeef yépp c'est la preuve de Dieu wa huwa sayyidu shababi ahlil janna moom itam kenn la ci sangi waxambaane wa baabu najaatil umma mooy bunt bi nga xam ni ci la sama xeet wi di di mucce ku fa jaarul ci moom nag doo mucc waaye ku jaar ci moom dugg danga nga mucc amruhu amri lu mu digle maa ko digle wa taatuhu taati ku ko topp ca lu mu digle topp nga ma ci li ma digle lépp man tabiahu fa innahu minni ku topp nu mii ci man nga bokk wa man asaahu fa laysa minni waaye ku ko mooy bokkoo ak man bi ma ko séenee muy ñëw nag ma fàttaliku ñu koy ware ñu ngi ko jug ñan ñoo koy war mu ni xanaa sama xeet wi su ma fi jógee te kat buñ koy war du du du wàcc ndigal de ndax balaa dina génn ma dina waaye balaa muy génn ñëw na tàggu ma dina ñëw tàggu ma ci sama sama sama bàmmeel wa qad jaara bi xaram yi wa qabri dana ñëw làqu ci sama xabru fii ak sama xaram bi falaa yu jaaru kenn du ko làq kenn du ko dimbali danañ ko fitnaal danañ ko gëtën fa adumuhu fi manaami bu fa dikkee dinaa dinaa ko sol nelaw dana fa nelaw taseeg man ci biir nelaw yi dinaa ko taf ci sama dënn dalal xelam ba pare wax ko li muy def moo tax boo demee ci téere bii ma lay wax am na fa beneen boo xam ne dañ ko tuddee ar ruyal xaq jamono bi Ousseynou toogee foofu ci xabru maamam gént na fa maamam indi na benn xadis boo xam ne mat na ñetti page ba ñeenti page mu ngi ci téere bii ma leen di wax xañ na bu occasion amee danañ ci ñëw nett leen na mu gént ak li ko maamam doon wax ci Karbala yépp ak ban stratégie la war a taxawal maama moo ko demal aji ci biir génte googa boo ajee boo defee arafaat ba def sa ñaan def sa xutba pare génnal màkka bu fa toog parce que rëcc nga madina fa lañ da bëggoon a reyee pour am lay dañ laa bëgg rey màkka pour am lay boo defee sa sa sa sa arafaat ba pare ña ngi lay xaaj ca bésu aj ba génnal dem Irak looloo tax ngeen gis Xuseyn bisub arafaat la génn la génn màkka dem fa yartaxilu anha ila ardi maqtalihi fa lay jóge dem ci suuf fa bale nga xam fa lañ koy reyee ardu karbin wa balaa suufas njàqare ak suufus balaa wa qatlin wa fanaa suuf ak rey la ak extermination rek lañ fay def parce que dañ fa def loo xam ne l'histoire dootu ko fàtte ba keroog àddina du tukki tansuruhu asaabatun min al muslimin une toute petite ñoo koy ànd ak moom ci jullit di ko ñoo koy jàppale ulaika waaye ñooñee di ko jàppale min saadati shuhadaay ummat dinañ bokk ci sangi martir yi sama xeet wi yowmal qiyaamati bu ëllëxee ka anni anzuru ilayhi li tax ma jooy mooy maa ngi nii mel ni maa ngi koy xool rumiya bi sahamin fa xarra an farasihi ñu koy sànni fett yi ba mu daanu ci fasam wi sariyaan deret ji sànni ba mënul taxaw ndax perte na lépp ci deret su ma yudbaxu kama yudbaxul kapshu gaa ñi ci seen goree di ak seen kiñaan ak seen mbon danañ ko dikk rendi ko ni ñuy rendee ab gàtt loolu lañ ma won loolu laay jooy mazluman te dañ koy tooñ nag du début à la dañ koy tooñ ba fa tooñ yam su summa baka rasulullah ci noonu nag day saan yonent daal di jooy jooyat jooy yu metti ba bakaa man xawloo ñu nekkoon foofu yëpp jooy y compris ñi ngeen xam y compris mag magi saxaaba yi ñépp jooy mu daal jóg dugg biir këram ba mu jógee dugg kër gi Assane ak Ousseyne jóg topp ca Fatima topp ca alin toppaat ci yonent bi duggaat këram lii bokk na ci yenn xadis yu rot am na yeneen yu ko nekk yu ko nettaliwaat yu bari lay wan yonent bi dund na Karbala wax na la fay xew avertir na umma bi ni leen yéen la mais teniruñu compte ci avertissement boobee teewul def nañ ko ndax fañ ko jëkkee buñ doon ñu am xel wala bu ñu dëggu ci lañ nekk ak yonent bi kon Fatima kenn du ko rey quarant 45 jours après son père te rey ñu ko cinq jours après de 3 jours après lañ ko duma duma yu métti yooyee ñetti fan. bàyyam ngi doog am ñetti fan ci weer ci ci ci ci biir bàmmeel ñu def ko loola daal cay dem imaam Xuseyn alayhi salaam bi muy demee Karbala looloo ko yóbbu mu ni leen dama ñëw ngir defaraat sama diinay maam moo tax mu mu ñu la masaatu Karbala imaam Jaafar Saadiq ni ñu Karbala daal bu ngeen ko bëggee xam kaay leen ma wax leen lii la masaatu karbala musibam karbala hiya masaatu diinil islaam yi mooy musibam diinil islaam ndax rey nañu Fatima ci biir kër nañ ko reye rey nañu Ali moom rek waaye kii dañ institution bi moo ko rey maanaam kii nii mooy xalifab yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom moo jóg def ictidaa maanaam agressé imaama ictidaun ala al imama allati ruknun min arkaani diin institution bu toll ni imaama dégg yàlla bi muy wax ci bi muy defar imaama ñu koy déclaré Ibrahima la ko jox ngir prévoir nit ñi xam nañ gars yi dañ ko jéem a yàq mu dugal ko foo xam ne kenn du ko mën a yàq te kenn doot ko mën a weddi inni jaailuka linnaasi imaaman qaala wa min durriyati qaala laa yanaal ahdi zalimin ku ma sa tooñ bokkoo ci institution boobu lañ bëggoon a yàq loolay Karbala imaama lañ bëggoon a faagaag la mu jëkk parce que bu fi imaama nekkuloon lan mooy xam lan mooy lan mooy am ba nëgë ni bu fi kar Karbala nekkul woon ba nëgë ni fi lan mooy am ci diine ñun ñëpp dañuy wéel lii nga xam moo am ci beneen boor bi benn xadiya bu amee maanaam benn problème bu posé wo mbaa benn question posé bu xam dafa am lien ak suñu dund dafa ñu war a xettali di nga ci gis soixante-dix versions yu bokkul après lu ñu lay wax yépp baax na c'est le socle de l'anarchie loolu mooy anarchie dëggantaan dëgg dëgg fan la allahumma salli ala muhammad bu amul woon mooy masala bu ñëw kilifa gu mag di la ko traiteel ni la way problème bii de ñaari wax moo ci am ñaari interprétation de moo ci am ah ñetti analyse de moo ci am ñetti point de vue am na ci juróom-ñaari gisin am nañ ci doo ci xam ban nga ci ban moo ci dëgg institution imaama mooy bi nga xam ni moo fi nekkoon ngir loola bañ a am mooy lan kenn ku nekk doo am say ambition yi bopp nga dikk ni kon mën naa koo dugal ci lislaam parce que am naa sañ-sañ bi am naa autorité bi anarchie boobu mooy njaxas googu pëccëxoo googu ak réeroo googu la yàlla doon bañ moo tax mu indi institution imaama parce que nubuwa gi am na fu muy yem en tant que institution imaama mooy ñëw nag jël ko intégré ko ba pare continuer ko nag suuso ci beneen vocal ci beneen nom boo xam ne mooy tudd imaama hmm? royaume la woon léegi mu tudd république xam ngeen ko nangu ngeen ko loolu tax imaam Jaafar Saadiq ni ñu faagaagal islaam lañ bëggoon parce que bu ñu faagaagaloon imaama rek c'est fini l'islam dootu fi dafay jóg ndax lan su ngeen demee ba lislaam nangu soixante-dix versions yu bokkul soixante-dix façons de prier yu bokkul maanaam juróom-ñaar fukki anami julli yu bokkul kenn ku nekk ni baax na loolu mooy kon bu baax ba danañ ko sànni fële waaye alhamdulilah rabbil alamin moo tax boo demee ci eh, mazhabu jaafar di mazhabu shia di mazhabul imaam ya nga xam dañu topp njàngaleem yonent bi te njàngaleem yonent buñ ca wutee imaam yi ñoom ñoo ñu jox version bi wér da ngay gis ni loolee moom dalu leen moo tax mu ni dañ ko bëggoon a yàq min aslihi wa usulihi dañ ko bëggoon a exterminer exterminer garab gi mooy ñu dagg ko ca reen ya xam nga garab boo ko daggee ci bànqaas bi nii rek wala nga dagg tronc bi rek bàyyi ko fa noonu reen yi dund dana jebbiwaat waaye boo ko defee istisaal boo ko exterminé maanaam gas ko ba ca reen ya nga dagg reen yëpp déjjati ko c'est fini garab googu dootul sax loolu lañ bëggoon ci Karbala loolu lañ bëggoon ci lislaam moo taxoon ñu ni nañu exterminé nu mi su ko defee comme mag baay ba dem na ginnaaw bi maam ji demee mag ja dem na moom moo fi des bëgg a mbir mi nañ ko jeexal jeexal njaboot ko su ko defee dootu fi am na fi jiw jóg moo tax ngeen dégg Yezid ba mu paree mu naan waaw nag dara def naa li may def pare wax yu wàccatul du allahu akbar moo ma tax a jóg du saxal fi laa ilaha illallah moo ma tax a jóg waaye fayu li ñu maamam defoon ñu jóg fi ñoom ñun ñu continuer gouverner ci jàmm loolu moom a taxoon a jóg loolu bokk yi laa bëggoon tey jii ñu indi ko ci xam taxawaayu yonent bi ci Karbala ka wax na ko dund na ko mettitu na ko noonee mu dundee méttit ko noonu la ko doom ju baaxam joojee Fatima Zahra bi mu fi laata jógee dunde xame ko noonu noonu la ko rakkam ju baax ji amirul muminin imam Ali dunde ndax seen mag magam ji wax na ko ko noonu la ko imam Xasan dunde par Ousseynou doon ñëw nekk nga xam ne moo ko doon loolu yi fi ñuy tëjee mooy Hussein c'est le symbole de la cohésion leçon boobu laa bëggoon a tënke tëjee symbole de la cohésion maanaam moom mooy ki nga xam ne mooy wane mooy làmp bennoo mooy jàngale bennoo mooy jàpp jàngale jàppante ak wóolonte c'est une communauté boo xoolee Karbala c'est la communauté musulmane en miniature moo ñëwoon carbala suude ànd autour d'un seul guide muy Maulana abi abdullah imam Hussein alayhi salaam kenn mënul dugg ba yàqal leen ison tout essayé nag avant ñuy ñëw parce que li ñu bëggoon mooy xiifal leen Mawlaana nga koy wax barki dem ci discours am sonal leen gaa ñi découragé bàyyi ko dem ñu captiver imam Hussein yóbbu ko ci Yézid vivant muy dund ñu toroxal ko loolu ñu soxla woon def lu leen neex wala sañu emprisonné ko. wala ñu réeral ko kenn dootu wax mais mu ànd ak ay taalibe ak njaboot goo xam ni góor jigéen mag ak ndaw ñépp nag nga ñoom ñépp ñu ànd doon benn benn doon googu ñu doon benn moo tax Ousseynou am victoire bi mu am tey Ousseynou kat dañoo tuur deretam mais ba tey jii mi ngi dund anaka ko tuur trois ans après Yazid kenn déggatu ko trois ans après Yazid dee tey jii kenn du kenn dégg ngeen kenn ñu naan ñu ñu célébrer Yazid wala am ñenn ñuy dem ci bàmmeelam di ko ziyaara gisu ko fenn gisu ko ci ci baayam Muawiya gisu leen ko ci maamam Abu Sufyaan cohésion boobu mooy benn googu ak dëgër googu doon benn doon genn njaboot di ko dox loolu ñun communauté chiite Muzdahir derrière Maulana Seyd Chérif Mouhamad Ali Haydar xaadimi ahlil bayt alayhim salaam dañ ko war a jël comme leçon gis nga une communauté qui grandit qui s'élargit njaboot gu am sëriñ di màgg am ngëm-ngëm bu sell bu baax bu baax nag parce que gëm mu'min bu gëmee ngëm communauté bu am ngëm kenn du man ci yow dara yonent bi bi biñ demee ba xam am loolu dañ ko infiltré infiltration googu ñu infiltré woon yonent bi moo tax bi mu fi jógee njabootam mënuñoo jël pouvoir ba la communauté du Père avait été terriblement infiltrée maanaam dañoo duggoon ca biir yàq pombiteer bi ci biir yàq ko ba yépp yàqu cohésion amul woon parce que bu cohésion amoon imaamu Alioune kenn du ko def li ñu ko def dañoo daje ay groupe daje fal def ay proposition ñenn kii kay ku nekk commencé gis intérêt ku nekk commencé gis intérêt ñu commencé di di yëkkat lu ñu tee an nairaat di def ay propos yoo xam dafay indi ay suspicion ñu dugal ko ci biir xeetu kenn ñu commencé dégg benn wax bu ñuy wax naan way xam nga Quraysh du mën a d'accord vraiment nubuwa nekk ci benn famille ba pare xilaafa gi ñëw nekkaat ci beneen famille une façon de dire que gars yi dañu leen di exploiter communauté buy dox di màgg ay gone di ca judd ay fii di ca judd di ca màgg di épouser idéologie bi xalaat bi yar bi di dox ca loola faw mu am ay yàqkat yu dugg ca ñoom junj naa ko fii démb bu ñu defulee ndànk danañ dugg suñu biir féewale ñu féewale googu ñu dugg pour féewale ñu dañ koy def ci ay affaires yu tuuti ay intérêt ka koy def na doo ko xam mën a nekk ku ne yow nag kenn ku nekk man dama war a wax ni man dey dinaa def lépp pour bañ a bañ a nekk agent boobu ñuy utiliser pour détruire la communauté Mousdahir man de je vais me battre de toutes mais forces ak sama bakkan ak sama nafs ak sama orgueil ba du ma du ma nekk élément bi ñuy utiliser contrement communauté boo ko def kenn ku nekk mën nga ko war nga ko moytu kenn ku nekk moytu am na yoo xam ne bu amee bu commencé am ci lu tuuti lay jaaree lañ la koy defale nañ def ni yéen la du keneen yéen la loolu ki kay def ci sa xel ku mën a doon nag neel attention soit par erreur de façon consciente ou inconsciente mi ngi may détruire quelquefois sax nit def loo xam ni xamu ko fekk day yàq ñu baree baree baree baree bari ci ba saqiifa bani ida dañ leen utiliser mais xamuñu woon ne dañ leen doon utiliser lan moo ko waral parce que ils ont été naïfs dañoo doyadi woon doyadi nag ñun dañ ko war a daw cohésion benn ci leçon yi gën a importante ñu mën ko jàng ci Karbala bu ñu koy jàng ci Karbala mooy ko dañ ko jàng ci imaam Hussein ak ay taalibeem mooy bennoo dégg ndigal déglu seen kilifa ku ci jaaxle ci dara di ko waa kilifa gi ma ne nangam ak nangam nangam nan laa war a def mun la jaaral fii te bu la ko bu xësee jib dootoo ca xool sa intérêt bopp yow la la ca neex ak la la ca naqari moo tax yàlla mi ngi ñu koy wax ci anam bu doy waar maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaratu min amrihim jullit bu sincère bu dëkk góor mbaa bu jigéen bu yàlla ak yonentam joxe une orientation ni nii la moom amatul choix amatul choix taalibe soo bëggee jubal da ngay inspiré wu ci aaya boobu parce que kat bu ñuy topp kat suñu sëriñ dañ koy topp parce que dañoo am yaakaar ak yàqin ci moom ni moom daf ñuy yóbbu ca yonante bi sallallahu alayhi wa donc càllale gi benn la loolu laa bëggoon dénkaan waat njaboot gi soppe yi ak xarit yi ñu ñu xam ni ay gani Xuseyni lañu wax naa ko fi démb Ousseynou du nangu ñu frustré kenn du nangu kenn itam jël ay frustration dugal ko ci boppam te gani Xuseyni nañ def pour Xuseyni sacrifions-nous pour Xuseyni nañ nangu def yëpp ngir imaam Xuseyni alayhi salaam mu fay ñu mu fay ñu daanaa wax ni liggéey bii Maolana tàmbali ba mu ko tàmbalee jàppal bàyyil commencé li lu nekk dugg ci laa ni ku am xel da nga comprendre nii ni liggéey bii ñu tàmbali soobu ci di dem c'est une course de fond c'est une course de fond ce n'est pas une course de vitesse course de vitesse mooy bi nga xam bu ñu nee bëreet 100 mètres la nga def ci li nga am lépp jëkk a egg. bala ngaa sonn egg course de fond bu ñu nee bëre nga def ci li nga am lépp da nga taxaw da nga abandonné ñu continuer bu ngeen di xool meeting yi am ci athlétisme da ngeen di gis loolu. bëret def tuuti ñaari tour ñetti tour abandonné wàcc gaal gi doo yegg fii nag ku yeggul ku yeggul doo fayeeku c'est une course de fonds mooy lan ca yonent bi lañ jëm fa la ñuy teere il est le seul juge moom rek moo naan bii kii baaxle nag kii baaxlewul keneen du ko wax bu ma xamee loolu nag damay def ngir Xuseyn ngir yonent bi foofa laa jëm tant que eggaguma du ma découragé lu ma ci fekk ma ni waa Karbala ñoo ma gënoon a mettile hmm? gaa yi dañ leen doon fett de mais xiifal nañ leen maral leen teg leen lépp ma yëguñu xiif ba yëguñu mer ba xam nga lu tax ndax mbëggeel gi ñu amoon ci yàlla ak ci yonent bi ak ci waliyullah bii di Xuseyn alayhi salaam boo bëggee doo doo xiif doo mar boo bëggee doo xiif doo boo àndoon ak Chérif Mouhamad Ali Haydar ngeen dugg ci àllub Casamance mbaa ci àllu Guinée Bissau mbaa Burkina Faso mbaa Mali mbaa euh, fen ngeen ànd di dem di dem di dem di dem di dem boo ko nee Chérif damaa sonn rek xam naa certainement dans son fort été ne ah Moussa matagul taalib Chérif duñ jënd ndox ñaan boo ko boo yëgee mar rek. matala ko continuer góorgóorlu ci boo toppee ci sa ginnaaw sëriñ muy waaxu di dox tànk taxawul ni nañ noppalu yow waroo yëg mar waroo yëg xiif parce que l'amour que tu bi nga ànd ak moom ak privilège bi nga am par nekk ak sa sëriñ parce que ñëpp amuñu privilège yooyu daf lay fàtteloo mar dafa laa war a fàtteloo coono dafa laa war a fàtteloo sa bopp ko defee nag nga yokk parce que am na lu sëriñ di yor di ko joxe du ko jox ku dikk ci bureau mbaa ci biir néegam ni ko damaa bëgg nga jox ma tur bu may werd du la ko joxee noonu sëriñ ba dana la jox lu bare bare bare bare bari ngay dem di yokk di dem yokk ba yëkkatu doo xam lu la ko jox fekk moo la tëbb moo la connecté rek sa sa bluetooth di di alimenté wu di dem te yëgoo ko waaw waaw waaye sëriñ jox ma lu may werd mën na laa jox de waaye amoo ba baax ba da ngay xaar mu defaral la ba nga defaru ba mu xam ni baax nga mu jox la ko hmm? mën na laa jox mu nekk une charge fekk mi ngi la doon préparé pour nga mën a am charge camion nga profité laaj ko ko mu jox la loo xam ne xajul eh, kii sax mënu ko yo eh, kii eh, kii ko yow welo charge welo amoo bu bari alors que soo mu ñoon tuuti ba pare ba préparé bu la joxee charge nga mën a yóbbu camion ay léeb la ak ay image yu ñu leen di jox noonu yal yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi xaqil xusayni alayhi salaam yàlla nañu yàlla nangul bi xormatil xusayni alayhi salaam sallallahu alayka ya sayidi ya mawlaaya ya aba abdillah wala al arwaaxi allati xallata bi finaika aleykum minni salaamullahi abadan ma baqitu wa baqiya leyla wa nahaar wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu